xana di wax na rek fu mu nekk nii euh, lépp ngi jaar yoon li waroon yëpp ci matériel jot nañ ci li waroon yëpp ci budget jot nañ ci donc amuñu benn problème ci ci ci loolu ci lu war a tax euh, mbiri jaar yoon te ñu ngi xam di di di di di xaar rek que suba ak gannaaw suba dinañ jàll ci formation wu superviseurs yi ak contrôleurs yi Tëngéej nag am na lu ëpp juróom benn téeméeri ak lu topp ci ay bureau ak lieu de vote ci onze communes yëpp te bureau de vote bu ci ne ak lieu de vote yëpp dina am kenn ku fa toogal Sénat bi loolu dafa am solo euh, nit ñi xam ko ba ñu xam ne ci wàllu woowu acteurs yëpp danañ fa daje waaye supervision bi ak contrôle bi ci dana jaar yoon te ñooñu recruter nañ leen ba pare renforcement capacité yi moo ci des dinañ ko def ci ñaari wala ñetti fan yii di ñëw matériel bi aussi ñoom ñëpp jot nañ ci kon fi mu nekk nii li ñu mën a wax daal mooy lépp yemb na donc ñi nga xamante ni daal seen ay organisation ñoo leen yebal agsi nañu may fàttali rek ne bu ci nekk ñaari cachet la war a am cachet administration bi ak cachet Sénat pour validation bi loolu it wax dëgg yàlla ñoom ñu ngi ñëw té y'a pas encore de problème dans ce sens te tout se passe ñëpp ngi dox normalement xana li ci des rek moy ñaan yalla egg ci si jàmm di euh, wo acteur yépp politique bi ndax ñoo xew ndax ñu xam ne rek élection la Sénégal muy wutaat njiit te du lu bees. du bu jëkk du bu mujje te tey nag beesul beesul kon ci kàttanu yàlla ko ñu xamee ko noonu amlante confiance suñu biir wóolu li koy def dem ci élection yi ci ci jàmm ku gañe ñu xam ne loolu yàlla tànn bàyyi Sénégal ci jàmm pour mën a tax ki nga xamante ni moo koy donn moom mooy succédé ki fi ne doon Sénégal bu dal Sénégal bu bu nit ñi di wóolu bu étranger di wóolu Sénégal bi bi bi ñu bi neex dimbali parce que dëkk yu yëngu yëpp neexul dimbali dëkk yu yëngu yëpp neexul defar te Sénégal yi tolluwul foofu waaye tension politique bi at bi at yi ñu weesu am na nu mu nirool ba nga xamante ni wax dëgg yàlla euh, suñ ci suñ ci suñ ci ñëpp waxtaan rek. ñu xam ne dafa war a jaar ci yoon wi te ñu ngi ci yaakaar ñëpp ñu ngi ci woo ñëpp kilifa politique yi kilifa diine yi administration bi yéen presse bi ñu wax wax yu sell wax yu wax wax yu dal jàppale nit ñi rek ñu dem vote ji